Euh, bon peut dafa mer pour ñeneen ñi waaye dem na no moom nee na ni sama passeport diplomatique moom ma génnee. Mm-hmm. ok waaw moom passeport mm-hmm. diplomatique. Mm-hmm. Euh, damay dellu si ci décret bi nga xamee ni moom lañu ñu génnee bon déjà le 28 mars 2024 ñu ne ci biir décret bi dañoo modifier décret boo xamee ni wala euh, mu ngi amoon ci 27 août 1990. ci modification yi ci alinéa 3 ñu ne ci mën nañoo am passeport diplomatique ancien chef d'état ancien chef de gouvernement ancien ministre ak secrétaire d'état ak seeni euh, bu dee jigéen sa borom kër bu dee góor sa soxna moom nañu wax mais dañu ne mën nañu mën nañu ak war nañu am na différence ci tubaab ñu ne peuvent peuvent mooy mën nañoo am ça veut dire que c'est pas obligatoire ñu jox la dafa rafet peut-être ñu jox la dafa rafet ñu nga mën ko yore ne ni dama nekkoon représentant wu sama réew waaye passeport diplomatique bu dee dañu mën nañ ko jox ministre ancien ministre yëpp euh, ñaata ministre ñoo fi jàll waxuma jamono yu Abdou Diouf deux mille deux mille ci Ablaye Wade Macky Sall ba tey ñaata ministre yenn saa yi nga gis ministre bu ñu fal am na ministre bu éphémère boo xam ne yaakaar naa bañ ko falee juróom-benn fan xaw ma yu mel noonu ñu soppi ko ci jamonoy Abdoulaye Wade ñaata ministre la ñu war a jox kon wala ñoo war a am wala ñoo am fi ñu toll nii passeport diplomatique ancien ministre je veux dire mais lan mooy diplomate wala euh, kan moo am sañ-sañu ñu tuddee la diplomate wala représentant askan wala réew. mooy ki nga xamee bu demee bitim réew réewam la fay taxawaaye taxawaayu réewam moom moo ko fay yóbbu njëriñu réewam moom moo ko fay yóbbu mais bu doon loolu kon yaakaar naa yenn chef d'entreprise bi war nañ leen jox passeport diplomatique bu dee amuñu ko parce que bu ñu demee donte seen entreprise moo leen taxa jóg mais dañuy représenter benn réew muy réewum Sénégal waykat yi euh, ñuy dem ci ay conseil ak yooyu te chaque jour nga dégg ñu ne euh, euh, diw dafa ànd ak équipe dem ba foofu ñu ñenn ñi réer daw ñooñu est-ce que waruñu leen jox passeport diplomate bu ñu demee foofu seen turu réew lañ fay yóbbu drapeau national lañ fay yóbbu suñu joueur football yi yaakaar naa ali xaw ma ndax am nañ passeport diplomatique de waaw bon parce qu'il représente le Sénégal aussi mais est-ce que war nañ ko def benn euh, marché yaa ma marché yaa ma neex nuñ ko mën a waaye ah, waaw mais loolu man jàpp naa ni ñëpp. ñi war a am. Hmm. autorités yi xam nañu ñu war a am dinañ jox ñu war a am. Hmm. ña am dinañ ko jële ci ñoom ndax dañuy fàttaliku 2012 Macky Sall bi muy falu. Hmm. Euh, coow li bari woon na parce que dafa nangulu ay passeport diplomatique ba ci yenn ci ay sëriñ. ñoo xam ne dañuy dem ñu ñëw foqati sa passeport diplomatique. ci lu wér. mu mu indi woon coow. parce que dañ ko joxewoon nu mu nu mu leen neexee ci benn période ñaar ñoo indiwoon nañ fi benn coow passeport diplomatique ba ñu jàpp ci ay député ak yu ni mel ci assemblée nationale mu am ñaari kuréel yoo xam ne ñoom ñoo am sañ-sañu defarlu passeport diplomatique ndax ba ci talon wu passeport bi passeport diplomatique talon bi nekkul fii de euh, bureau des passeports bi nekk fii booru jëppal de déedéet. Euh, ministère des affaires étrangères moom moo ko yore te même présidence buy sàkku passeport diplomatique daf koy jaaree ci ministère des affaires étrangères mais am na sañ-sañu présidence ne ni dama bëgg Alamine mii wala euh, Barka nañ ma ko joxal passeport diplomatique mais day yabale bu ñu yóbbu ko ca ministère des affaires ñoo ñu mën koo defar parce que du n'importe ñu moo ko war a yore dafa am passeport diplomatique am passeport de service passement de service bi mën na am sax durée bu gàtt ñu ne dañ maa yabal ma war a dem Allemagne euh, ci diir bi pour représenter Sénégal passeport ordinaire laa yore mënuñu maa jox passeport diplomatique pour benn mission dong la jox ma passeport de service boo xam ne damay représenter réewum Sénégal ci mbirum service boobu ma nekk nii muy ministère wala bu mu mën a doon pour dem mën a taxawal fa euh, ci mën a am facilité la. passeport diplomatique c' est juste pour nga mën a am facilité parce que boo amee passeport diplomatique normalement da ngay am valise diplomatique waaye ngeen imagine ngeen Birahim Touré jox ko passeport diplomatique ne ko yaa ngi sa sa valise diplomatique. Sénégal bari nañ ñu ñoo xam ni li ngay wax naan ay euh, diplomate lañ. soo diplomate lool man dama xam dama ci xam dara lu néew. Uh-huh. xam nga ñu ngi wax sànq ci Mbaye Sidi Mbaye yàlla suñu borom xaaree ko na il a fait des pays ay Belgique ay Allemagne sama waajur bi ma jur. danoon ànd ak ñun ci mission bu muy dem sur le plan diplomatique di fa représenter réewum Sénégal nekk ca consulat wu euh, Sénégal euh, ca Allemagne nekk ca consulat wu Sénégal ca Jidda Arabie Saoudite mais bu fa demee moom en tant que conseiller bu jëm ci wàllu communication ak culture dafay yóbbu culture Sénégal ak communication Sénégal kooku boo ko joxee passeport diplomatique war la parce que ministère des affaires étrangères sax ñoo ko yebal kooku diplomate la léegi bu demee njabootam muy soxnaam bu fa demee dañ naan ah jabaru diplomate nangam wala jabaru ambassadeur bi ñooñu moo tax tamit ñooñu ñu leen di jox passeport diplomatique parce que ñoom dañuy dem di nekk ak ay jabaru yeneen ambassadeur yu nekk ci réew moomu donc di représenter réewum Sénégal ca foofu ñuy ne te comme am na facilité wu ñu jël sauf conduite wala passeport de service jox ko say doom wala ñun ba bañ fay nekk nga xamee ne ay tout tànk lañu amaguñu âge am passeport ñu jël suñuy photo ak suñuy tur dugal ko ci suñu waajur wu jigéen mais loolu c'est parce que boobu temps dafa amoon état ndax jamonoy Abdou Diouf jamonoy Senghor dañoo xamoon état du ñu def nem du ñu booba temps passeport diplomatique dafa dañ ko doon compter mais léegi kan moo am passeport diplomatique demal fëgg yenn artistes yoo xamee ni ñaari nit ñoo leen di topp ci YouTube boo demee ñëw fekk fa passeport diplomatique am na ñoo xamee ni parce que xaw na ñoo jege président ba woon wala jege woon nañu ministre ba woon ñëw am audience ci ministre bi nekkoon ministre daal vraiment man daal passeport diplomatique juste pour tur am am naa passeport diplomatique pour turam te mosoo dem fenn wala foo ci dem tamit doo ci représenté benn réew sa bopp ngay représenté nekkee ci lu la neex ñaata nit a fi am di joxante ay rendez-vous ca bitim réew pour nekkee lu leen neex mais je suis très d'accord bu ñu xoolaatee c'est pas parce que tu es ancien ministre am nga ci droit mais am nañu sañ-sañu xool ne ni ancien ministre nga waa d'accord dañu xool sa passeport diplomatique valable na wala valable parce que euh, da nga koy na da ngay renouveler passeport ordinaire te renouvellement bi tamit dafa am say sart yu muy tegu Birahim comme comme quoi que ni dañu dañu jël passeport dañ ko dakkal parce que nekkatuñ fonction d'ailleurs muy wax que ni moom elle parlementaire toujours loolu aussi lu mën nangu la. moom parlementaire la. Mhm. dañ ko delloo passeport am. effectivement. parce que député la. Mhm. nekk parlementaire am passeport diplomatique. Mhm. mais fa muy dem dafay représenter en tant que parlementaire dafay représenter Sénégal elle est toujours yore passeport am mais newuñu ko bul bul génn. delloo nañ ko passeport diplomatique am. parce que dañ mais dañ ko vérifier ba noppi. mais tamit nag nañu may autorité yi à mon avis parce que ku ñëw da ngay ñëw ak sa say méthode ak sa sa façon de faire man nañ leen may ñu ñu càmbar ça veut pas dire que les anciens ministres ne vont pas retrouver leur passeport diplomatique ou voyager avec leur passeport diplomatique mais ñaata anciens ministres fi génn man ne dégguma benn ministre ancien ministre. bu kaas na ne dañoo jël sama passeport diplomatique dégguma ko te pourtant bari nañu si ñoo xamee génn nañu réew mi actuellement dem nañu fi Màkka dem euh, umra ji am na ñoo xamee ni peut-être génn nañu pour euh, jëli ay vacances ak yu ni mel am na ku ma ci dégg ñu naan ma nga euh, Canada juste pour quelques jours seeti njabootam ak yooyu amu ci kenn ku ma liir wala ma dégg ñu ne nii dañoo nangu sa passeport diplomatique peut-être que dafa fekkee am ñu ñu jël seen passeport diplomatique mais ça ñoom xam nañ yoon bi ñu war a jaar pour ñu delloo leen ko wala pour ñu mën leen jox yeneen passeport diplomatique yu bees mais man jàpp naa ni sànq yaa laaj du mbirum chasse aux sorcières mais euh, c'est juste pour réguler c'est un secteur qu'on doit réguler loolu moom je suis très d'accord réguler le secteur mooy ministère des affaires étrangères pourtant Mankeur Ndiaye ak kii moom moo jox exposé des motifs bi jox ko président mu ko mais déjà anam ak période bi ñu ko signé moo njëkk am jeexital ci xelu nit ndax le vingt quatre xaw ma mars vingt huit mars tuuti lañ ci teg vingt huit mars fin fin du mois la woon. Mm-hmm. fekk nañu def nañu élection yi xam nañu ko gagné tuuti lañ ci teg ñu dem ci passation. ci diir bu gàtt boobu ñu bëgg a soppi décret yeeg yooyu ci lu jëm ci ay passeport diplomatique attention euh, autorités yi ñoo yey nañu dañuy taxaw xool sa veut pas dire que chasse aux sorcières la parce que tal nañ leneen lu dul chasse aux sorcières mais am nañ sañ-sañu xoolaat defaraat euh, te euh, lépp set daal moo gën euh, yenn ci ay tuuma yi.